kaaw kilifa moom noo ko dundee ginnaaw bañ koy tuumaal wàllum escroquerie au visa mu génn leeral Sénégal yi ne nekk woon escroquerie au visa ah, wàllum jaay otolo ak woon noo ko dundee yow. waaw ni ma ko dundee moom mooy euh, affaire kilifa képp koo xam ne célébrité nga muy waykat muy mbëru làmb mhm. muy journaliste muy ku mu mën a doon daal da nga ci war a jël leçon. Mhm. gis ji man mi di wax ak yow chaque jour ma am ay proposition yoo xam ni tey. yoo xam ni su ma ko accepté woon rek nit mun na ci profité wut fu mu la jaar. Mhm. boo nekkee en artiste dan ku ñëpp xam da war a maytu. te kilifa su rakk la day ñëw doon yàgg na ñëw ci man ñuy demalante mu nekk suma ma rakk boo xam ni booy bu correct la booy bu baax la. Mhm. mais le conseil que je lui donne mooy dëgg la génn na mu weddi walla yooy yëpp amul mais comme. tey jii dañ ci tudd affaire escroquerie au visa moom ay artistes yu bëri yoo xam ne tey jii loolu sax mën na tax ay artistes yàqu la ci. Mhm. te moom dañ ko filmer à son insu di wax ak moom waxu xaalis le conseil que je lui donne xam mooy lan na dem mu porter plainte ki ko filmer su porte plainte ki ko filmer kooku wax lu tax mu filmer ko. Mhm. wax lu tax kii ñu nga xam ne affaire bi dañ koy tirer au clair. parce que tamit dafa jeex ci dafa war a jeex ci Sénégal en tant que journaliste professionnel laa wax. Mhm. képp ko am problème léegi ci réew mi rek da nga naan waaw dama am problème parce que dama contre nguur gi chaque jour nga gis nit néew ma nag moom moo def néew ma deful mais chaque jour nga gis nit koo xam ni àndul ak pouvoir xëy suba teel am lu ko dal nekk safaan wala njubadi après ñoom ñu jàpp ni waaw dañu contre pouvoir bi moo tax gars yi kon léegi daal ku contre pouvoir rek yow nit ku jub nga pourtant dañuy jàkkaarloog ñu nekk ci pouvoir bi naan ay sàcc lañu. Mhm. man gis naa ku nekk ci pouvoir bi koo xam ne dañ ko jiiñ foo bi jàpp nañ ko fi tëj ko fi. même après suñ ko bàyyee muy kii nu mu tudd. Bougazelli Bougazelli mais nañ ko tëj ko fi kaso. mu mhm. perte poste de député mag yooyu. donc soo nekkee ci opposition wala nga nekk journaliste wala nga koo mën a doon koo xam ne yow àndoo nguur. Mhm. su fekkee dañ la jiiñ dara demal fa ñuy leerale nga leeral ba xam ni man de man bu fekkoon man lañ filmer à mon insu. Mm. di ma wax waxi visa dëgg la dinaa def sortie bu mu def déclaration de presse bi mu def c'est important mu def ko mais ki ma filmé à mon insu dinaa ko porter plainte ñu dem tribunal leeral ba nga xam ne man ak moom sequñu dara lu jëm ci wàllu xaalis. Mhm. conseil boobu daal laa xam ne moom maa koy jox kilifa en tant que grand frère. d'accord loolu euh, dégg na la.